ci Leewtoo TV nuyu nañ leen ziar leen màggal oblige safar moom la ñuy alxames yéen ngi dégg ay jàng fan kër Modou Lo Modou xarañ Lo le roi des arènes tay nag di dimanche moo woote ay cant fii nga xam ne mooy ci këram Yoff Apix yàgg maar baas baa ngoogu jigéen ñaa ngoogu toog yéen ngi fii Yoff Apix Papa Seliago ndeysaan

yàgg maar xam nga tamit boo xewle faw say am di jaam ñëw mu du wootee safar papa Sow ñu fekk ko fi naa loolu yàlla na papa bëgg naa la. waa ñu ngi leen ba. ma ne leen tey ne Lamine Babacar dafa gën a gàtt tey quoi ñu ne ma non caay ji la. moom moom mooy la man dama bëgg caay nag papa. non mooy yëfu nit sax. caay da ngay noppalu dafa oyof dafa yaa waaw loolay caaya. am na solo yaa ngi am jàmm. yaata yaat alhamdulilah. yéen a ngi safar de. waaw alhamdulilah alhamdulilah rabbil alamin ndax bon sëñ Tuubaa li mu wax rek du ci safar ko mën a ku ci mën a dimbali rek jaamule ko ci yàlla santale ko ci yàlla rek waaw kon nag lu ci waay def rek bu ko xeeb lu ci waay mën rek da ko def quoi ndax lépp njariñ la moo tax tey bis bu wootee safar vraiment dañuy bàyyi suñu yëpp ñëw ànd ak moom. <clears throat> ànd ci ut ci tiyaaba ji ak yokkute bi daal. mu mel ni daal papa moom diggante nag Modou moom fi mu nekk nii maanaam euh, li gars yi naan soo ak suukar boole naan wala boole tur parce que lu Modou woote papa na ca lu papa woote Modou na ca. waaw mais sama rakk la Modou sama rakk la yàlla mooy boole ay nit ñuy ànd dañuy ànd te yàlla rek tax te ànd bi yàlla na gën a continuer yàlla nañ ànd ànd ànd am cent cof ci làmb ji de ba tey gars yi lay xaar de papa. waaw ñun ñu ngi di rek man maa gën a namm maa gën a namm gars yi wàcc ci géew wax dëgg yàlla waaw naa ko lool wax dëgg yàlla damay dégg ku ku mel ni nga Diagne bu immédiat euh, suñu papa Ngagne Diagne dana Papa Sow mbir moom entrant la mooy entrant <laughs> ah entrant boo ko déggee pour man ni mu waxee mooy mbir moom entrant la mooy mbir mu ci làmb entrant voilà entrant lay wax moom. aussi waaw waaw non. mbër moom dugg ci làmb mooy. ku xam làmb nga. mbër bu dugg see rek mbër bu dugg see rek di nga xam lu bari yow bu dee yàgg nga xam làmb baa nga dem làmb waaw. mais temps yi gis nañ làmb ji combat mag mënta taxaw lu tax. mais gaa yi ñu ngi négocier gars yi ñuy wax ni rek combat yu taxaw nangam nangam. yàlla xam na ni fii ak màgg ak di passé yóneen incha allahu rabbi combat yi mag yu bëri dina taxaw. gars yi ñu ci bu baax a baax. yaa ngi si tëdd xanaa mën nañu. yëpp mbër yëpp mbër yëpp ci kaw. ñu ngeen di waxaale. ñu yëpp presque mbër yi si ëpp bokk bu doon fukk lañ ñu. Modou ñu ngi koy waxaale. Ah, man am ah, Modou kër Modou ngi nii tout près <laughs> ah. waaw. man bir na gars yi négocier mais parce que adversaire adversaire koo koo ci mënta boole keneen ak ni nga fi di bëre ku ñu yàlla boole te ñu war a bëre rek vraiment pan pour yow. Boy Niang de mbër moom entrant la yéen ñaar bu ngeen bëree est-ce que dina est-ce que du neex. dafa neex. bu neex la. Baye Demba Ndir ci côté bi Gana Diop ca côté bee. waaw Baye Demba de mooy borom Dakar nag. gànna ah. it mën naa tëgg de surtout 5-5 toujours Baye Demba toujours 5-5 moom bokkul ak dara ci làmb yéen sax xam ngeen loolu ambiance 5-5 bokkul ak dara nit da mën na tëggee leen leen waaye bu desee lu dul làmb rek ñu war a làmb moom non Baye amu ci morom ci ruuxu ci ñaari tëgg Baye Demba amu ci morom écrit boo ne tous Baye Demba da lay daanal barki rasulaay kon ñu joxoon Baye Demba foor yu njëkk lay foor xam nga léegi gars yi dañoo a yàq sax day tëgg ngewel daal. caw pulaat kii caw pulaat Baye Dem ah. ah. foofu neex na dem Pape ba léegi Baye Dem rek ouf. non papa euh, frère la. lu bëri daf noo boole nag quoi sincèrement ñun. de plan nag mais Modou Lo tamit li mu def nii dafa naa ne lu am solo la de. waaw mais xam nga rek Modou tamit mooy loolu quoi xolam rek xol bi dafa baax. rek ñun il faut nu def si teewaay quoi kon ñun tamit lépp lu ñu woote lépp lu xam lépp lu xew suñu kër rek ni si siy teewee moom teen bu xewlee noonu lañ koy teewee quoi waaw moom Modou nit ku baax la quoi sincèrement maa la gën a bég sama xarit <laughs> jaajëf grand bi <laughs> jaajëf waay ah, Serigne Touba Papa Gueye mën na koo de xaar ay sëriñ sëriñ nag naka safar bi man de dama yaakaaroon sëriñ ci ay yor ay butéel ak yooyu rek la mën nekk sëriñ si kar ak dukkat moo ko fi daal ay nit lañ nag duñu ay dof dañuy jaamu yàlla de duñu ay dof de ah. làmb la ñuy nekk ay dof waaye buñ génnee ay nit la ñuy nekk de waaw ah, dañuy sant yàlla rek mu mel ne am lu ma seetlu Sénégal yëpp sa seetlu ko moo du ñun ñëw nañ fi reportage yoof jàmmalaay woote appel mu woote fii këram togg bernde woo nit ñi màggal ñu mu def ko maanaam loolu lu muy jàngale. waaw ah, day yokk xeet Seydina Muhammad rek bu Baalaa woote sëñ Baba mam Limaamu Laay wootee mam Maodo woote sëñ Touba wootee Baye Niass wootee lépp da ci war a def rek yokk yokk islam la rek yokk seet xeetu Seydina Muhammad la rek benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar bërki dem rek Masaalikul Jinaan wane na ko. abbe bi ñëw na tijaan bi ñëw na ñaseen bi ñëw na laayan bi ñëw na benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar waaw di ñaanal nag sénégalais yëpp ñu dem màggali ci jàmm ñibbi ci jàmm buñ paree ci màggal gi ñu waajal gàmmu gi bis Seydina Muhammad sal gën gi min def moom rek lañ fi am de waaw mais Serigne nag kenn du la gis fi parce que waxtaan fan yële passé mais coow li daa gën a takkar si Serigne da ngeen a ragal Ama Baldé nag nañ bàyyi làmb lu tax ngeen di bàyyi làmb dañ nekk ci safar gi 18 safar. waa mbokk yi nag comme niñ ko xamee rek safar la ñu wax 18 safar loolu nag suñ ko waxee yaakaar na sëñ Bàmba moom moo waxoon lu ko boromam defal mu tuut ci xëy na sant ko ba tax mu woo jullit ñëpp bu bés bi jotee muy le 18 ci weeru wolof ñu sant la ko si boromam mu loo di ko def ñu fekk surtout Serigne Touba ñu koy wax Baye Jili Mbàkke ah ñu fas yéene dégg suñuy micro rek mu wax ñu waaw moom sax ñun daal amuñu luñ koy laaj sëñ daal ñu ngi lay ziar. asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di delloo siyaar bi di fay dem am mbégte ak kontaante ci teewaay bi ngeen fi teew waaw ndaxte waaw ak kontaante ci teewaay bu baax a baax ndax li moom ndimbal la ndax sëriñ bi comme bis bi dafa woote comme ni nga ko waxee noonu ne ñu santale ko borom bis bi la wax 18 safar waaye mbégte mi mooy waral ñuy dabu bis boobu noonu ba di dabu safar bi kak suur nii ñu koy teewee fu nekk. waaw tey jii nag ñu ñëw fii mu tudd ko def comme ni nga ko waxee xëy na sax mën nañ taalibe Cheikh waaye liggéeyu sëriñ bi moo yaatu ba moom comme que liggéeyam bépp amu doon doon mu murit wala kenn ñëpp rek ñu aju ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëpp lay liggéeyal mooy waral ku ci nekk rek di def sa kem kattan ci la nga mën ca loola waa te eh, lu ko waaye defal moom am nag fay waa lu ci waaye def moom ni mu ko waxee moom sant gi moom na ci def dara rek ndax dana ginaar ba ci gëléem kon xeebut yéemut waaye ku nekk nanga nga nga toll ngay def waaye buy fay ni mu toll la lay fay waaw waaw moo waral kenn du def dara ba réccu ko daal waaw di am mbégte ndaxte lii daal eh, lu ñëpp ñëpp ko ñëpp ko war a def ñëpp ñëpp lu yaatu la loo xam ne la ko laaj maanaam parce que comme Sénégal mag ñi fi yàlla def mag ñu baax lañu ñu gis tamit mu du ñun ñëw nañu fii ak ah, appel layen mu doon def lu mel nii ñëw fi màggal mu def lu mel nii maanaam loolu lan lañ ci war a mën a jàngate daal. ci koo xam ne borom tur nga. waaw mooy lu baax rek lu baax ñu day daw lu baax lépp rek yaatal ko comme ni nga koy waxee ci laayeen wax ko fa neen man mii rek safar bi ma doon def barki dem parcelle indi di mooy seen kër moom moo ko moo jënd nag moom moo jënd nag ko ñëwar ba bëti quoi mën naa yem ca na rek waaye teewul mu defaat fii nii ci këram gi ci yoof nii kon da leer ne lu baax loolu noonu muy yaatal di ko def fu nekk ñu nag doomu aadama fii jaxasoo mënoo koo xam waaw foog nga jaxasoo moom mën a xam da ngay gis nii rek jàpp am mbër ni ci tele bi wala nanga waaye lu baax la cee yàgg def ñu ko xam-xam nañ ne ñu tam xarit tubaski noonu la ko defee di ko yaatal di ko def di dimbali nit ñi waaw waaye lu baax moom kenn du ko def di ko réccu waaw moo waral tànki kanam rek lay waaye du am tànki ginnaaw incha allah hmm. waaw yéen it di am mbégte di ñaan daal seen site yi nii muy mën a Leewtoo TV ak Lutte TV di ñaan suñu borom teg ci loxo kàttanal leen ci safar gi daal ngeen ñëw ngeen liggéey nii ngeen kaw dem ba jóge ci gën a faw yëpp rek am ci lu kawe seen njort waaw mu doon si di gën a yaatu ci àdduna bi egg fépp ngeen am ci lu kawe njort yéen suñu borom defal leen teraanga ju yaatoo yaatu sëriñ bi am na ko mën na ko te ko waaye lebal dana la fay mu ne ne boo ku def loo man mu fay la loo mënul ku def loo mu fay la lu la jomm waaw moo tax ngeen xool ba ren dee déwén incha allah ak yokkute rek lay doon yal loolu lépp waaw waa bu baax a baax ba tey ñu ngi Kër Modou loo fekk fi suñu papa Moustapha mbay di tàggatu Seydina Muhammad sallallahu alayhi ndax moom sax loolu la ko ñëpp di daaken bàkk dàkkentale ginnaaw bu ñu la nuyu la suñu papa Moustapha Mbaye. waaw maa ngi leen di fay kontaan am contentement lool ci teew gi ma teew ci safar bii ànd kook sama sang bii di sëñ Jiidi Mbàkke maanaam mu yëgal ma safar ma ñëw ci kër sëñ Modou Lo gi sama xol sedd na guy vraiment ci teew gi ma teew fii waaw. Euh, safar moom buñ ko waxee Serigne Bamba ci santale yàlla bi moo ci sant yàlla borom bi woo ñëpp ñu sant ko ci yàlla yaakaar naa ne te lu mu am ci nabil Moustapha la ko amee loo sallallahu alayhi wa loo ñu mën a may foofu parce que faw nga yëkkatul ñu dara. ku fi ma sa baax woo loolu ci yàlla waaw ngir ñu sunna si bey ku fi jàmbaar woo naanu ci yow ngir tiri borom bey yow deesu la gëm di gëm leneen sa diine doy na xar nu béy ay waay ngir ñu jëfe sunna si Yonent béy ku fi mas baax woo naanu ci yow ngir ñu jëfe sunna si Yonent béy ku fi jàmbaar woonanu tiyaa ngir ñu bàyyi tere borom bey yow Mamadu yaay xayru naas yaay buntu borom bi ay way ngir ñu jëfi sunu yonent be ku fi jàmbaar walalu ci yaw ngir ñu bàyyi tiri borom be yow de su la gëm di gëm leneen sa diine doy na xarnu be ay sama ca lay dooni nam jaara bu sama ca poroxaan góor gi dawloo Cheikh Moussa Mbacke catlu góor gi ji léegi léegi loolu ma yaa leen gën sali dawaab ma sama may waaja wasalaam ma waskur xilaab ma li wa binaayi yasal irada yasal ifada xalit saada li bitidnaayi imnextidaayi sidini xetidaa زدنا باء بلا الله صفي ارتفاعي بلا جفاعي طيب أساعي طيب خداعي يسر وجودي سنجير سمام لنا كل بجودي واجعل وجودي فوق لداي قبلي وداداي سمام خذ لي مرادا يا من آفانا بلا كراي قبل البروراي ximil xaroora abdan surura lii kulli raay sama ne waskur xilaami yaa gën maam wa man kalaam bi laa maalaami walantiraay samam ne na sari lisaat ni naawir jannaani safi amaani wasit baraaya sasata dayra lii quta mayra فالرك في جورا لمن يراي أنسيالي من دلالي وبالألالي خلي سراي سن بمني تابا خذ الكتاب وقبل ما تابا يا سسراي يا خير ربي خير المربي تبدأ قلبي بعد شداي سلي وسلم على المتمم وكل ياسم بي لانتياي dindinda wonanu ci yaw ngir ñu jëfe sunu yoon be ku fi jàmbaar wonanu ci yaw ngir ñu bàyyi tere borom be yow de sunu gëm di gëm leneen sa diine doy na xarnu be sama doom jaa ngi nii demal ci moom xale bii demal ci moom. leen dama bëgg nga defal ma leen nga am loo ma may ci sëñ Bamba mais am loo xam tamit danga ma koy may si maam Maodo parce que Moodu moo woote tey fii ci këram di ci ci Yoff. ndeysaan kon kon. gëmu nun ko dul xadimeñ mooy ki nu saf te moonu yem na ñëpp dal maasini xiyem ma jug te way fi Ahmadu te yii la neex ku nekk ñëw jël si indi acca kooñ ba jëf jote kenn taxañ te moo di ma Ahmadu ñan jële woon fa seeni kër dajale leen leen fa biiru ndar ñoom far bam des ku makka ahmadu yii gaay di yuuxu bëgg a am ca ñu tiit ba fëlkël ku nekk jiital ahmadu sëriñ Tuuba li mu war yeneen nit mënu ko lim ko jaral kenn xamu ko sëriñ sa woon kenn yabu ko xam na nu ñoom kuy ahmadu ana noonu baax na ah ah loolu de radiya anni subtoot yi jaani ali ridwaanu mi bidil jaani si Bamba nee Maalik gërëm na ma waaw waaw Xaadimu Bamba nee na radiya anni zibtu abu hasan ali yuwaaru yaxrudu hasan radiya anni zibtu abu hasan ali yuwaanu ridwaanu ridwaanu yaxrudu hasan daam borom njaarim noonu baax bég nañ